sëñ Muntaxa Bachiru Mbàkke yàlla fi yàgg te mu tasaare ñu ko ci wesaare ko ci mbooloo mu njabootu sëñ Mor gépp di nuyu njaboot gépp buñ tegee nuyoo yi ci loxo yi sëñ Mor Cuun tudd nañ di nuyu le ministre le ministre conseil Isma Dioum li mu wax sànq jàpp naa ne lu am solo la waaye nag dafa am dafa dafa dafa am taxawaay am yéene ci dëkk bi amit yéene ci ñun ñii sama diggante digganteewam yàgg lool bi ñu yàlla boolee booba ñu nga ñun ñaar ñëpp ñu nga nekk ministère de la santé moom fa taxawaay bu mat sëkk taxawaay bu rafet amit taxawaay ci département bi mi ngi nuyu tamit bu baax a baax responsable yi ñu fekk yëpp ñu yëngatu ci wàllu ci li ñuy wax politique ne ci kujje gi wala nga nekk feneen rek ak foo boor ba ma ci nekk ñu ngi lay nuyu jox sa wàccuwaay di beneen nuyoo tamit sëñ Mbaye Mbaye bu baax ci jàppam waaye tamit di ko sant bu baax. ndax at mu ne nag moo ñuy boole ci nañoo mel nii kon moo tuddee rek tudd naa la maire Pape Diop ndax xam naa seen diggante ñoom ñaar fan yu weesu day nañ cees ci xew-xew bu mel nii mu féddali kóllëre gi gi nga xamante ne moom nga seq ak waa Mbàkke waaye seq koy ak ak say bay peñ kon kàddu yi mën naa bañ a gudd kàddu jant la sant yàlla bu baax a baax ginnaaw ba ñu baaxee at yi wees yëpp ñu fekkee ko baaxewaay ñuy baaxewaat ñu it at mii ñu ñëw teew fii muy mbégte ci ñun nag ndax li na ministre wax sànq doon na sëkk sëñ moo ci ku nekk xamoon na taxawaayam ci yoon wi kon liñ ci wax ci moom day ñaan yàlla yàlla baaxe ñu ñun ñëpp nag bañ man teg suñu tànk fañ ko tegoon ñoom ba mën a yaakaar ñun ñu ëllëg ñu nekk ay murid saadix kon ñu ngi sant njaboot yu baax bu baax a baax di sant bu baax it cuune gépp wàgg sëñ Mor Cuunu wàgg sëñ Omar Jóob maanaam mbokk yeeg taalibe soppe yi seen jàpp démb ak seen jàpp ki démb seen i ak seen jàppale ak seen taxaw ñaan yooyu ngeen ñaan nag ba yàlla tey teg ñu fii ci bopp dëkk bi ñu ñaan yàlla ngeen dolli ñaan yi ba yàlla mottal suñu yéene ci Mbàkke waaye tamit yàlla gën a dooleel président de la République ci réew mi ba mottali yéeneem ci askanu senegal gépp waaye tamit àggale yéeneem ci Mbàkke gi ndax it bi ma fi toogee nekk maire li ma njëkk moo dalal ma ma toog ak moo wax ko yittee waa Mbàkke wax li waa Mbàkke di jooy yépp ci wàllu infrastructure surtout ci fànn yépp mu jël ci engagement ne daana ci jàppale te jàpp naa tamit ne waa Mbacke ñooy gis ne bu baax a baax président muy gën a jàppale Mbacke bi ma fi nekkee léegi kon mu ngi sant ñëpp waaye nag fi may daanele mooy mbay Mbaye Mbengue li Isma wax sànq dama ko dee ma ne loolu yaa ko mën a wax boo ubbee mu àggale day baax it fi la président teg ñoo xam sa taxawaay ci dëkk bi xam liñ fi représenté ndax lii bokk nga ci ñu ko sabab du bokk fi rek moo tax nag saa bu koy wootee ñu wuyu si leen loolu doo ko doyut jikkoo tax ak taxawaay ak melokaan ak loo tekki nag ci dëkk bi kon nag day baax nga soobu ci mbir mi politique amul xaddi amul tàyyi amul sonn danga ciy nekk rek ñu xam ne tamit li tax ñëpp ñu ne ci mooy fexe Mbàkke jëm ci kanam ndax ñun ñëpp Mbàkke ñu boole ku ne si ñu rek mën naa toog jàpp njaamuram bañ a yëngatu ci politique waaye ñoom ñëpp tax ñu yëngatu mooy fexe dëkk bi am fu mu yekk te ñun ñëpp dañ ko war a ànd jàppante nekk benn yénante boo ko defee ñun ñëpp suñu yéene àgg ci dëkk bi jërë ngeen jëf wasalaam ki nga xam ne mooy kilifa jotaay bi toog fii di Serigne Moustapha moom Serigne Mbacke Madina waaye ci kilifteefu Serigne maam Mor Thioune mi nga xamee ne mooy xalifab Cheikh Mor Thioune ak sëriñ Mor Thioune mi nga xamee ne mooy xalifab sëriñ Thiat di xalifab Serigne Modou Thioune di kilifa ak jotaay bii di borom kër gi di nuyu ak kàddu yoo xame ni mu ngi jóge ci Serigne Khalil Sarr ibnu maam Serigne Sarr moom Cheikh Ibrahima Sarr jasaaka maam Cheikh Sarr mu ngi ne toog di maam moom maam Mor Diarra Sarr moom maam Cheikh Ibrahima Sarr di nuyoo it ci waa kër sëñ Omar yëpp sëriñ Cheikh Mbaye Diop ma nga ne toog daanaka boo ko limee wax nga sëñ xalifa wax nga sëñ ibraahima wax nga mboolem njaboot njóobeen gépp ndax moom kër sëñ Omar ak kër Cheikh Mor ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk lépp rawatee nag ñun bokk ko ba noppi xam ko ba pare di ko dundal ndax lépp loo xamee nii ña ca ànd nañ ko ñun ba mu jeex tàkk bés bii barki démb ca pencum njóobeen lañ ko fa taxawal ca jàkk ja waxtaane ko fa waajal ko fa kon nag loolu wane na ne kër Serigne Omar ak kër seex Mor benn la rawatee na ñu ñii nga xamee ne ndax Cheikh Mor Thioune daa bari penc man nga ca njaareem ma nga gusaas ma nga fu ne waaye ñun yàlla dañoo féetale Mbàkke Bawol gii ak Touba ñu féete ak Serigne Omar sëñ taat daam daam daan ñu wax lu bari ci waa kër Omar kon nag dundal ngeen ko kon yàlla na ko yàlla na yàlla gën a jàpp kóllëre gi te gën koo dëgëral jërë ngeen jëf mu doon wax na délégation yëpp. waaye ci kilifteef sëñ Cheikh moom sëñ Mbàkke Madina ndax sëñ El Hadji fi njëkk a ñëw te kenn ku teew ci ñoom rek bu teewee teewal nga sëñ Cheikh doyoon na sëkk sëriñ Saaliwu ñëw sëriñ Moustapha ngi nii mi ngi nii toog moom bu toogee ci jataay bi kulóor na ko waaye ci kilifteefu nag sëriñ Mountakha Bachir yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko di ñaan yàlla naan yii mu naanal sëriñ Touba yàlla na ko àggale ci sagoom te na ànd koog moom. te yàlla dëgëral ko dolli ko wér ndax sëñ Abib bi sëñ Abib bi mi ngi noonu dem sëñ Cheikh Ibrahima mi ngi noonu dem délégation Mame Mor Diarra mi ngi noonu dem te ñooñu ñëpp kenn ku ci ne doy nga sëkk ci ndawul seex Cheikh Mourtala Cheikh Mountakha Bachir kon ñooñu kenn ku ci ñëwoon rek doy na sëkk te xam naa ne na ko sëñ Aboo defoo woon sëñ Cheikh Mbacke Madina ak keneen ak yéen ak sëñ Modou Mahfouz fii ba minuit ñoom ñëpp kenn ku ci ne xam nañ xataayu koor. waaye dañuy jàpp ne bis bi seen bisu bopp la lu tàngooru métti métti métti ak mbir mi lu métti métti dañ bàyyi seen lépp ñëw sëñ abibu sëñ sëñ aboo moom sëñ fàllu daaw bi dogee ba noppi la ñëw wane ne xatoon na loolu yitte yi bari na waaye daa bàyyi lépp ñëw te leer na ne noonu la koy defee waat kon daal ci cant ci gàttal sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant organisateurs yi nag nga xamee ne liggéey bi bi mu tàmbalee ba léegi ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew màggal gi bi ñu koy tàmbali booba gënee gu ma àdduna màggal gi am na lópp juróom-ñaar fukki at soxna si ko tàmbali woon ci café dong la ko tàmbali woon kii ñu ko tuddee tey may mooy Baye Ibrahima Diop ñoom ñoo ko doon jàng jàppale ci soxna si moom Baye Cheikh Mbacke Mbeng Baye Madama Mbeng Baye Fallou Diop ñoo ko daan fanaan jàng ba bëset ak sëñ sëñ Wade te booba gëneegul àdduna kon nag fàttaliku leen dafay mel ne loolu suñu borom boo ko santaane kon lii ñu def dañuy jéem a bëgg xeñtu baaxitulu mag ñi ci ñu mag ñi xaman ñoo àndoon ak soxna si di liggéey ba mu yëf yëf yi am barke agsi fii mu agsi ñu leen di fàttaliku wàññiwul dara moo tax ñu jëlaat cër bi jox ko bàyyi bu ndax kenn ku ne xam na cëram ci dëkk bi kenn ku ne xam na cëram ci màggal gi xam na ni mu ci daan engagé woon te du ci bañ dara kon nag njaboot ki ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla nu yàlla tas ci barkeem te daal yàlla doolu koy njëgal doolu koy yërmande te lépp luñ fi ñaan yàlla bu ko ci kenn ëppale te lépp luñ fi yàlla na ko yàlla nangu ci barke sëñ Touba te jot la ko ci sëriñ Modou ci mi nga xam ne moo tax ñu ñu tànt tànt bi tey kon sëriñ bi nee na sëriñ Mor mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp organisateurs yi xale yi bu ma limee damay juum waaye ñi nekk Europe ñi nekk Amérique ñi nekk Sénégal waa Mbàkke Bawol ñëpp génn man daanaka bis bi dafa woyof tooy yi ci man defatuma ci dara loolu nag lu ko waral mooy ñaan gu nangu rek. tey ànd ak ñoo xamee nii tey jii moo wax na nga mënul nga saa di wax warutuma woon sa wax waaye li sëñ Mor wax na ma waa waxal ci kàddu moo tax may wax ci kàddoom waaye man soxlu woon may wax ndax mënul bu waxee rek doy na sëkk kon euh, maa ngi sant ñëpp di sa gërëm ñëpp di sant nag waa koñ bi engagement bi nga xamee ne def na ko ci yëf ndax ni ñu jëlee liggéey bi ak démb ba léegi maanaam ba koor ga tere ba léegi bàyyi woon dara ñi nga ànd ak ñun ci liggéey bi di daw guddi ak bëccëg. bàyyiwul menn waxtu loolu defe naa ne lu rëy la sëriñ bi gis na ko sëriñ Tuubaa mi tax ngeen di jëf ak bokk yàlla leen bokk fay yàlla leen sëriñ Tuubaa fay bu loolu weesoo yi ñu ngi nuyu nag la délégation présidentielle suñ xarit Isma jum ñëw ànd ak le ministre galaw Ba jiite délégation bi le maire de Mbacké Gallo nag ak Isma ñoom bis bii moom ndaw mal tànk boole leen ci dañ cee bokk. bi nga xamee ne amuñu woon benn ndombal tànk kon lii ñu ma wax sax am sañ-sañ ci man ak bokk ci bis moo moo tax ñu yemee koo wax loolu sama xol sedd na ci guy waaye xam leen ne sama loxo du jóg benn yoon ci jàppale président ndax sama engagement ci wax ci biir ak ci kaw ak fu mu mën a nekk di ko ñaanal di ko ñaanal loolu ci laa nekk kon du mu ci jóg benn yoon waaye yéen ñaar ndombal tànk boolewuleen bis bi galaw am na lu la waxoon fii daaw ne la am na luñ soxla suñu diggante président nga nekk interlocuteur bi interlocuteur mooy lan koo xam ne day toog ci conseil des ministres bu président waxee mu dégg bu waxee président dégg bu amee note wala programme bu ko joxee président président jàllale ko loolu lañ bëggoon tey am nañ ko kon lan bëggoon ci bisub daaw ba yàlla may nañ ko tey alhamdulilahi rabil alamina ab jaam nag bu ñaanee yàlla yàlla may ko ko dafa a sant kon ñu yàlla bu baax ci loolu moo defal di la ñaanal it ndombal tànk ñii lu ñu jox yàlla na ko yàlla yokk ba jox la leneen loo xamee ni dana gën a yaatu ndax ba nga ko yore ba léegi koo ci war a dimbale yaa koy dimbale fonction publique bii koo ci war a dugalal yaa ci dugalal kon nag loolu wane na ne waa Mbàkke moom jox na la seen kàddu waaye nag jox nga leen sa bopp yow dangaa jël sa bopp jox ko waa Mbàkke kon nag loolu macha allah yàlla na yàlla jàppale jàppale ministre conseiller. ak mboolem délégation yi nga xam ne moom ngeen àndal ñëpp su ma doon lim temps bi day xat waaye kenn ko ne mën naa jaar ci juróom wax la fi nga jaar man ndax au conseiller madame sàll ngi noon toog ak Daba Diouf ak ñeneen ak ñeneen ndax faaw mu tudd ñaari jigéen ndax dafay baax ci mbir mi ndax boo nee góor danga nga jigéen moo tax ma tudd leen ñoom ñaar waaye ñi ci des ñëpp kenn ku ci ne bu ma tuddee galaw rek day mel ni yóbbaale naa leen kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla. gala yàlla na yàlla gën a dëgëral li nga yéene ci mbàkke yàlla ko yàlla àggale li ngay def ci xale yii ñoom nga ko defal ñoom ñii xam na ne musuma génne sama loxo benn yoon ci politique ndax lépp lu def danañ ko waxtaan ak man te dinaa joxe samay xalaat dinaa joxe samay samay sama doole ak sama kàttan te la ma leen waxee buñ ko toppee dañ ci gis ndam kon nag loolu kii nag dama ameel weexal ba léegi fayagu ma ndax dama koo jaanaloon te nangu maa fay muy sëñ Cheikh mii sa waaj kon nag euh, monsieur le ministre ñu ngi lay ñaanal bu baax di ñaan yàlla ci barkeb sëñ Touba lii la yàlla jox yàlla na ko yàlla yokk di ñaan yàlla yàlla yàlla def jàmm ci réew mi président Macky Sall dañ koy ñaanal jàmm ndax boo amee jàmm rek Sénégal jàmm ndax la Sëñ Abdoul Aziz waxoon boo nekkee ci gaal da ngay ñaan jàmm bul ñaan sabab saag mucc da ngay ñaan gaal ga mucc ndax bu gaal ga muccee nga mucc kon nag Sénégal gii ñu nekk dañu ñaan yàlla yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na ko yàlla muccal ba président li mu yéene ci Sénégal boo ko àggale yàlla na ko àggale ci barkeb Sëriñ Tuubaa di ñaanal mbooleem ñi fi teew ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di ñaanal mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm di sant bu baax nag waa ahlul lansaar sëñ Xalil ma nga ne mux-mux la jógee sori lool ci tàngoor waaye dafa xam ne li gànna mesara waxe léegi rek ndax Sëriñ Tuubaa moom lépp lu mu jël ba teg ko ci barab la lay dimbale mooy loolu nga jéem a fexe nan ngay jéem pour di ko dundal moo lay dimbale yow ndax suñ Tuubaa moom lu mu xas dund rek dund na kon nag bu yàlla baaxee ñu nekk ci loolu di ko liggéey guddeeg bëccëg moom mii mu nekk ca Muxmax di fa dund loo xamee ne nii di ko dundal barabu maam Serigne Sarr bàyyi foofu ñëw ba fii ak sëñ Mamour Sarr ak ñoom ñëpp ak kenn ku ci nekk ku ci teewoon mu doy sëkk defe naa ne loolu mooy kóllëre gi nga xam ne Serigne Touba boole woon na ko maam Cheikh Ibrahima Sarr jasaaka ne ko yàgg Cheikh Mor Thioune boole naa leen seen ñaari buntu kër àjjana yi moo jàkkaarloo nitu yàlla moom mën naa liggéey bay naagu ci yàlla te du àgg waaye nag Serigne Touba xamal ne àgg ngeen ba seen bunt karaaje yéen a jàkkaarloo moo ne ko li ngeen bëggoon amoon ko kon loolu yombul tey bu ne gisaaka yaa xillu Ibrahima mawlaaka lu mu ci teg mooy Cheikh Mor ci Mourid kon nag bu nu gëstoo gis leen rek dañ sant yàlla kon nag alhamdulilahi rabbil alamin sëñ bi nee na mi ngi sant ñëpp rawatina sëñ Moustapha mii fi toog jëmmal jotaay bi nga xam ne barab bii bañ koy tàmbali. ñu dem ci sëriñ Mbàkke Madina wax ko lañ ko wax lam ca ñaan ak sëriñ Caat dogu ca ba léegi moo yor mbir mi soxna si ba mu génne àdduna muy sama way wu jigéen way jur wu jigéen ba fa bàcc demee wax ko ko dana ko xanaa xamu leen bis bi da ngeen dem ba ay séddam di ko def tey dem na ba sédd yee def lépp man damaa toog di seetaan rek ak di superviser sëñ Mor a ngi nii day toog rek ñu laaj ko ndigal lan la war a def moog sëñ Maamoor ñu ne def leen nangam def leen jeex na xale yi def lépp kon nag sëriñ Mbàkke Madina la ma xoon bëggoon ko ñaan ko nangu na te sëñ Mbàkke Madina lépp lu mu wax wax ko ci kanamu sëñcaat loolu day am kon nag Mbàkke ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla yàggal la fi yàggal fi sëriñ Seex te dolli ko wér di ñaanal nag moo ñi fi teew ñëpp soxna yi ñu jóge Amérique ya fa nekk ak soxna yi ñu jóge Dakar ak ak ñu jóge France bàyyiwun kenn ñu ngi ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp ndax temps bi dafa xat te bu ndee lim day gudd waaye suñ kàddu ak suñ yéene weesu na loolu monsieur le maire Pape Diop kooku kenn la si man sama xarit sama doomu ndey sama homme de confiance ndax maa moom kenn la koo xam ne nii lu mu nekk maa nga ca lu ma nekk maa nga ca politique boolewuñu xanaa xamul bu ma duggee ci politique Pape Diop mii moo tax su ma duggee PDS di politique moom mii moo tax boobu 99 dinaa ñëw nan ma engagé wul jàppale Abdoulaye Wade ba mu dugg ci kon nag kooku defe naa ne yàgg naa ak moom tey jii bu demee dama dem ban toll fi ñu toll mu nekk fa mu nekk ma nekk fi ma nekk wëlbati ko ñu àndaat bokk coalition benn bokk yaakaar wane ne ne kon li naan rek dërëm bi génnul gaal gi.